bokki jullit yi bokki Touba ak li ñoo ngi fi tey ci jumaay Touba di grande mosquée de Touba ak euh, ñi nga xam ne ñoom la sëñ bi teg ci seen loxo jumaa ji ak morgue bi muy daayira bu ñu xam bu ñu taamu bu mag bu bokk ci daayira yi gën a rëy ci dëkk bi ñu koy Muxaddamatul Xidma ci euh, nekk ak Abdou Lahad Bousso ak euh, ñi ci topp ñu ngi fi it ak ki nga xam ne moo jiite faj mi ci dëkk bi di docteur Dieng ak ki nga xam ne moo yore service d'hygiène loolu nag bu ngeen ko déggee ci ndigal li nga xam ni Cheikh Mouhamadul Mountakha moo ko joxe ci lépp loo xam ne nii xew na ci réew mi wala bitim réew wala mu xew ci askan wi rek mu war cee wax wala mu jëf ci moom mi nga xam ne mooy xalif général de Mouride mu yaakaar ko tey ak ëllëg di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool jëf na ci xew-xew bii ndax yëkkati na ñaar téeméeri million joxe ko waaye wax na ci it te mooy nañ topp ndigal yii tey wattandiku loolee moom mooy wàccuwaayam loola it kenn ku ne xam na ni yeneen ndigal jóge na ci kilifa réew mi di président république ngir ñu wattandiku daje bi tey fas yéene set bu ñu waxee nag ma Moukhaddamatoul Khidma wax euh, service d'hygiène ñoom ñoo yore ak set ak ni nit ki war a def ba set ci biir dëkk bi soxna maam xari mi nga xam ni moom sët ci sëriñ bi di doom ci sëriñ Muntaxa moo indi woon moom it participation ci jëfe gum bëgg a jëfe ndigalul Serigne Touba di ko ci magam ji di Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké wëlëru euh, deux millions et quelques yoo xam ne jënd na ko ci Madar jënd ko ci eau de javel jënd ko ci gel bi ñuy raxasoo euh, ngir jàppale ko ñi nga xam ne ñoo yore faj mi muy hôpital bi ak ñi nga xam ne ñoo yore service d'hygiène ak ñi nga xam ne ñoo yore Muxaddamatul Xidma lenn li war a jëm ci barabu sëriñ Touba bi lenn li war a jëm ci biir jumaa ji ak li ko wër ndax ñiy julli si julli mbooloo ak yooyu lenn li ñu ko yóbbu ca morgo ba loole nag di taxawaay boo xam ne nii ku xam Serigne Mountakha mi waajuram xam ni bu ko defee nag mooy dëkkal nañ kër gi ki ko tabaxoon si ndax Serigne Mountakha Serigne Serigne Mouhamadou Mourtala nekk yu foon lu dul liggéeyal diine ba ni mu wujjee yàlla saa borom bi tabaraka wa taala kon soxna si ñu ngi koy sant bu baax a baax ci li nga xam ni moom la jëfat jëfati te lool nag daana ko jëf waxtu wu nekk koo xam ko nekk xam ni lépp lu mos a xew muy safinatul amaan loxoo a nga fa muy muxaddamatul xidma loxoo nga ma fa lépp loo xam ne ni sëñ bi woote na ko ci dëkk bi it du jàppe boppam jigéen rek waaye day jëf day jëf waaye day wax te loolee nag moo yore àdduna mooy kuy jëf nay jëf lu baax kuy wax nay wax lu baax ñu ngi sant mbokk yi fi teew yëpp di gërëm mbokk yi fi teew yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëriñ maam sëriñ Afia ñu ngi lay delloo am nuyoo bu baax di la delloo ab ziyaara di nuyu ak ziyaara itam mbokk yu baax yi nga àndal euh, dale ko ci sëriñ Mouhamadul Fadil Ndiaye ak kilifa yi nga xam ne ñoom la àndal yëpp jóge ci soxna maam xari di am mbégte itam di leen dalalaat ci barab bu tedd bii euh, di wax ne itam soxna si ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ci dégg gi nga xam ne dégg na ko euh, mu xaddamatul ma ci li jëf yi nga xam ne ñi ngi koy jëf ngir fagaroo ko ci tawat ji nga xam ne moo am Muxaddamatul ma bi nga xame ni mi ngi dégg tawat ji ci bitim réew la tàmbali woon moom dajale ay membre am di waxtaan ak ñoom ci ni nga xam ne noonu lañ ko doon dégg ci bitim réew ci waay ci faggandiku gi ak moytandiku bi bi mu egsee itam noonu lañ leen dajalewaat waxtaan ak ñoom moo xam ñu nekk ci biir jumaa ji moo xam ñu nekk ci armeel yi ngir ñu mën a nekk ay relais ci fa ñu jógee di jotliwaat xabaar yi di ko di sensibiliser nit ñi ci cet gi ni nga ko waxee léegi te cet di loo xam ne lislaam daf ko santaane. bi mu dikkee ba nga xam ne dégg nañ ko ci biir dëkk bi itam ñu jël ci seeni moyens ak li muy néew néew jënd ay sel jënd ay eau de jënd yi nga xam ne moom la ñu war a jënd la ca seen doole tollool ci jamono jooju gis ngeen ko it ñëpp ci àjjuma ji nga xam ne moo weesu mm-hmm. euh, teg ko ci bunti jumaa ji mm-hmm. armeel ya ak euh, morgue bi yooyu yëpp waaye nag lancé woon appel ci képp koo xamante ne bii nit ku jëf te yàlla tax la ñu xam ne barab bi barabu dajawukaay la boo xam ne mbooloo daf fi daje waxtu wu ne def nañu li ñu man waaye nag nuñ ko baaxoo waxee barab bi lépp ñëpp du leen ni kenn lépp ñëpp lu ne ku ne ngi ci kon kenn ku nekk war na cee man a jàpp tey jii soxna maam xarit Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Mourtada andi na fi lii nga jàkkaar lool euh, te di ko ci joxe kon mel na ne ñoom ñi ngi dégg euh, woote bi nga xam ne Moukhaddamatoul Khidma woote woon na ko ngir jàppalanteeg nit ñi ñi ngi soññi bokki jullit yëpp di soññi bokki taalibe yëpp ñu gën a farlu te tënku ci ndénkaan yi nga xam ne kër docteur ngi koy joxe euh, di soññi itam mbooleem mbokki taalibe yëpp waaye di delloo nag di sant soxna si bu baax a baax a baax a baax ndax euh, moom day wax dëgg yàlla taxawaayam rafet na lool ci barab bii waxtu wu ne loxoom mi ngi fiy ñëw ci lu mel nii koor gi ndogo yi ñuy def dina fi ñëw ànd ak ay xaritam di fi taxaw taxawaay bu rafet tey ji itam bi lii amee ñëwaat na fi taxaw taxawaay bu rafet kon sëriñ maam sëriñ sëriñ Fallou da ngeen ñu jot li soxna si suñuy cant bu baax te xam ne liggéey bii muy def maamam gis na ko te am nañ yaakaar ci ne bu baax ci ne fa fu ne lañ mën a yaakaar fay ak sëriñ waaye fii moom dañ fay am yàqin ci ne ku fi jëf ku nekk sëriñ Touba fay la donc suñu kàddu moom du gud xanaa di sant soxna si di ko gërëm rek waaw ci jëmale ko ci service bi te xam ne actuellement nii lii rek lañ soxla pour mën a feebar bi ñu wax ci dëkk bi ñu mën koo fekk parce que prévention rek mooy euh, maanaam meilleure méthode bi nga xam ne moo fi nekk te yu mel ni bu amee rek dañ koy sant di ko gërëm te di yàlla mu yokk parce que am na yéen moom tamit dool waat service den ci wàll wàllu produit donc kàddu yi du mën a sori sant la ak ngërëm rek te di ñaan yàlla yàlla taxaw ñu jàppale ci feebar bi incha allah.